Seex Mustafa santal dayab cante yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Mustafa aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi nga xam ni ñooy bàyyi xel Wilaya TV saa su ne nu ngi leen di nuyu tey jiital bu baax ñaan la Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha sunu borom dolli koo sàmm ba naali mu naa lépp ci légeel Serigne Touba Xadimu Rasul yàlla sunu borom may ko kattan gu mu koy gëlee te mandu koog taalibe yi. ñoomaat mbégte bu baax jàkkaarloowaat ak yéen kenn ku ne xam ni eh, boobu ba tey ñu ngi ci waajtaayu bës bu mag. bés bu tedd te muy bés bi nga xam ni uh, ci la Serigne Touba Xaadimu Rasuul jóge woon jaar jaareem ñibbi si Touba dëkkaale ji fii ak boromam ci Touba uh, kenn ku ne xam ni saa su bés bi agsee te muy tombeek Siréer Muharram di tombeek uh, ñaar fukki fan ak juróom-ñeent dañ koy màggal fii ci Touba muy bës bu historique boo xam ni Cheikh Mamadou Moustapha moo ko tàmbali woon di ko màggal jóge fi bàyyi ko doom ju baax ji Serigne Cheikh Ahmadou euh, boobu ba tey itam la fédération des groupement religieux et di disciples de Cheikh Ahmadou Bamba dénommé wilaya kenn ku ne gis euh, taxawaay yu am solo yi nga xam ne dañ ko ci am saa su ne euh, comme ni ñu ko baaxoon ak yéen ci wilaya TV mboolem structure yi nga xam ne tam dafa nekk ci wilaya ñu xamle leen ak ñoom fexe ba bés bi fépp foo xam ne rek dañ ko fay dundal wilaya def yitte ci fexe ba di ko dund ak yéen ci jamono boobu ñu ngi toog ak kenn ci jëwriñ yi nga xam ne ñoom itam ñoo téere yi muy wilaaye Niger ñoom itam di kenn ci ñi nga xam ne dañuy taxawu liggéey Cheikh Amadou Mbacké Gaynde Fatma foofee ca Niger ñu ngi toog ak jëwriñ ji Serigne Dame Guèye dañ koy bàyyi rek xam naa ci kanam tuuti mu nuyoo ko internet yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel ci YouTube bi muy Wilaya TV officiel waaye di ñu topp itam ci suñu page Facebook Wilaya di ñu topp itam ci page web www.wilaya.sn ah, di leen digal rek kon saa su ne ñu fex si yéene ànd ak ñun màggal gi ndax nii lañ ko fas yéene ànd ak yéen tay wi ñu euh, bi suba war doon màggal gi nii lañ ko fas ak yéen ci tay ak ci bés ba yëpp ci ay yoo xam ne ne day wax ci lu wute waaye itam reportage yi nga xam ne dañ ko def ci mbooleem barab yi nga xam ne dañu fay dundal bés bi kon sëñ Dame dañ lay bàyyi rek euh, laata ñu gën yaatal nga nuroog internet yi nga xam ne ñoo bàyyi xel ci Wilaya TV yëpp ok jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah mhm. sëñ Balla Ndoye ñu ngi leen di nuyu di nuyu mbooleem kilifa yu ñu fi fekk mhm. di leen ziare it bu baax mhm. di ci jiital sëriñ Muntaxa di ñaan bu baax suñu borom yàggal ko fi dolli ko wér waaye di ziar bu baax njabootu Serigne Touba gi yëpp. di ci jiital Serigne Ahmadul Mokhtar. muy kilifa ak Daarul Quddus waaye di nuyu bu baax ak di ziar. Serigne Abdourahmane Mbacke. mu yóbbaale mboolem fédération bi yëpp. ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziara. waaye di nuyu sunu mbokk taalibe yi ñu bàyyi fee ca Niger. muy waa wilaaye Niger ba fa ne. te suñu borom dogal tey ñu ñëw fi nekkal leen fi ñu nekkal ñu foofa. ñoom lañ ñëwoon rek teewal leen fi. gannaaw ñu ngi ziare ñëpp. tey ñaanal ñëpp li sàkku it ngeen ñaanal leen incha allah noo ngi tub bu baax incha allah jërëjëf sëriñ daam ci nuyoo bu solo bi nga xam ne def nga ko internet yi nga xam ni ñoo ñu bàyyi xel ci Wilaya TV saa su ne kon ñoo ko déggandoo muy kenn ci membre yi nga xam ne euh, ñoo nekk foofu ca Wilaya Niger muy Wilaya boo xam ne tam ci biir fédération bi la ñu bokk kon itam xëy na yéen si li ngeen di teew xëy na ci wàll yu mel nii muy ci internet bi xëy na ñu ci bare bari sax mën naa ne fédération bi sax xam naa am na ci ñoo xam ne xam na xayuñu xëy na xamuñu wilaya Niger kon balaa ñuy dugg ci dëgg-dëgg waxtaan bi maanaam ci bés beeg li ko aju ak li nga xam ne moo wënd waxtaan wi dañ lay bàyyi nga def présentation bu bref ci wilaya Niger euh, ci xëy na kañ la taxaw ak ni ñuy doxee ak seen doxalin nga dikkal ñu ci jërëjëf mhm. sëñ Balla loolu dina am solo loolu te lu ñu yitteel lay doon mhm. yaakaar naa bi ñu tàmbalee liggéey bi. 2016 hmm. la. Hmm. ñu dem Niger nekk fa ak mel ne sëñ Cheikh Gueye mii ak ñenn ci ñañ fa fekk. Hmm. màggal gi jot. mu mel na ñañ fa fekkoon joxuñu ko yitte. suñ borom dogal ñu doon ay ndaw yu yoo xam ne dañuy xeeñtu daal mbirum Daaru Xudoos. ñu xam ne lu munta ñàkk la. ci la ñu fexe ba taxawal fa wilaya bi. donte bariwuñu wuñu woon. ci lañ ca nekk di góor góorgóorlu di góorgóorlu 2016. mën naa ne biñ koy tàmbali ci budget bu néew lañ ko tàmbalee. Mm-hmm. premier jour biñ ko jëkk def sax. Mm-hmm. yaakaar naa budget bi lépp matul woon sept mille cinq cent. ndeysaan. sept mille cinq cent. ndeysaan. ndax dañoo ñëw rek. Mm-hmm. gaa yi ni lii daal mënut a ñàkk ci lañ xalaatee nag dajaloo. commencé di ko taxaw. ba nu ñu jokkoo ak ñenn ci waa daayri bi. ba léegi ñu am ay carte am lépp lu daayri di am ñu am ko di ko def. di continuer di doxal màggal gi. ba tey màggal gi toll ci budget boo xam ni dem na ci daanaka 4 millions. ci 7500 lañ tàmbalee en 2016. ndeysaan. te ay ndaw rek a fa nekk. Mhm. lépp loo xam ne ñu ngi koy def fii. Mhm. wilaya Niger da koy def. Mhm. bépp bis boo xam ne it wilaya da koy taxawu fii ci Sénégal. wilaya Niger da koy taxaw. bépp bis. muy bisu way daw lii. muy màggal Daaru Xuddoos. muy ñetti fanu barax bi. lu mu ci mënti doon. lépp lu jawar ña ngi koy def te ay ndaw rek koy def. ñooñu nag ñu soxla ñaan lañ. waaw wilaay Niger daal ci gàttal ay ndaw fa nekk mm-hmm. yu am jom ci bëgg liggéeyal sëriñ Tuubaa mm-hmm. seen dara dara du fekkee lu sëriñ bi soxla mm-hmm. te loolu rek lañ xam bi ñu tàmbalee ak léegi tey jii lañ amagun benn élément wilaya bu fekkee gun màggal gannaaw sëriñ Cheikh Gueye mais nga xam ni sunu mag la di sunu jëwriñ nekkandoo woon fa ak ñun moo ñu daan teewal ci yu mel nii tey jii mu toogoon fii sax mooy gën a matale donte nag maa fa nekk ci jamono jii mm-hmm. waaye bu ñëwoon xëy na du ñàkk mooy gën a matale ndax xëy moo ñu gën a miin jataay yu mel nii mm-hmm. waaye daal foofu la ñuy gàttanal rek Wilaya Niger daal lépp lu daayira bi di def mm-hmm. muy ci ay carte membre muy ci ay renouvellement muy ci ay cotisation lépp lu wilaya bi làkk rek ñu ngi koy def suñu kéemtalaay kattan macha allah sëriñ euh, sëriñ bi mu mel ni loolu tam pas-pas la ak Pastef ndax Euh, Niger mën naa ne du Touba. Mhm. du Taïf te du dëkk yi nga xam ne xëy na euh, yomb na euh, lu mel noonu di fa taxaw. Mhm. di fa sax te it ñu cay gis avancement loolu benn pas-pas la te it yitte ju kawe la ak jom. Mhm. ndax xëy na nekk ni bokkut tey nit ñi itam xëy na am wuute am na ci tey xëy na boo ñu doon ñëwal ci ni ngeen di dunde mbir mi ni ngeen ko fay dundee. ak ni nga waxee léegi mu mel ni yéen nga ngi commencé ci sept mille et quelque. tey ngeen di def budget quatre millions. tey ban obje maanaam ban ban avancement ngeen gis ca ni ngeen di taxaw bis bi ak ni leen ci nit ñi di fekk si. loolu moom li ci gën a dimbali. Mhm. bokk na ci euh, ndaw ya fa nekk. Mhm. dañuy xeeñtu sëriñ bi rek. lu ñu am danañ ko ci def. Mhm. nit ñi nga xam ni dañuy ñëw jàpp ci. ñoom seen bopp xam nañ liñ ñuy jox ñoom. ñoom li ñuy jëlee suñu ay poste di ko ci def moo ko ëpp ci ñëpp xam nañu lépp lu ñu nit def lu ñu nit jox dañ la ko defal ci bis bi saa su ne dama leen di wax ni bu ñu negoon ba vingt et une heures nit ñëw jox ñu cinq cent mille wala un million danañ ko dem mis wi ay xaar indil ko teg ko mais du génn bis bi parce que ki ñu jox xam joxuñu ko pour beneen bis daf ñu ko jox pour màggal ki kon lépp lu ñu fa nit jox rek dañ la ko ci defal waaye balaa nga ñuy jox dara nag da ñu ciy fekk ndax ay gone rek fa ne. man mii lañ jiital ca daayira ba kon xam nga mag nekku ci. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, te teewul kenn ku nekk bu buñ la waxee li li li ñu cotiser ak li ñuy def annuaire bi yëpp chaque 15 jours la ñu réunion. Mm-hmm. chaque jours danañ daje chaque lundi. bu ñu réunion tey tëb benn lundi beneen lundi bi dañuy daje. ci kër benn mbokk taalibe ngir ñu xamaale dëkkuwaayam. ba lu ko mën a arrivé kenn du laajte fu mu dëkk dañuy dem taxaw. am nañ ci avancement yu yaatu. Mm-hmm. ambassade Sénégal bi yitte ju mat la jox daayira wilaaya bi. ndeysaan. ndax gis na relation yi ñu am ak waa dëkk bi kilifay dëkk bi yëpp dañ jox bopp waa wilaaya. Mm-hmm. te mën naa ne li leen ko may yar rek laa koy teggi mm-hmm. ndax du at yu bëri du yàgg ca dëkk ba. comme 2016 la taxaw yàggul. biñ fay doog a ñëw metti woon trop. ñu doog a commencé liggéey bi. metti woon na metti woon na vraiment. ndeysaan. parce que caravane bi première année bi ñu koy jëkka def. amul luñ ci déggul. dégg nañ ci sax ay mbokk yu nekk ci yoon wi yu wax ñii ay terroriste dañ wala. cey. mais boo gëmee Serigne waa nekk ci li nga war a nekk rek. Mhm. Serigne bi moo lay teg loxo. tey ñi bañoon ñëpp dañ nangu. Mhm. ñëpp ñëw ci liggéey bi. Mhm. kër Serigne Touba tey mën naa ni lépp luñ fay yëkkati da ngay dégg ñu ne ana waa lu poos di def. boo fa demee ci ca liggéey ba waa waañ wa wilaay nga fay fekk. kuréel ba waa wilaay nga fay fekk. durus bi waa wilaaya nga fay fekk kon kenn mënu leen fa ci dara ca dafa am lu ñu sëriñ bi dimbalee nu ñu fay doxee mooy dañuy jël li ñu yor di leen ko jox bàyyi leen ñoom ak li ñu loolu bokk na ci li ñu fa gën a dimbali yi nga xam ne waa dëkk ba jox nañ ko wilaaya mhm. Niger dëkk la boo xam ne bokkul ak senegal nekkin ba am na nu mel mhm. te ay xéewlu ñu fa sant sekk gi mel noonu dafa bëri. maanaam xéewal dafa xaw a yomb lool. bis bi dañuy partagé lu bëri bëri ak ñoom. dëgg da nga ñu bari ñoo xam ne gannaaw bis bi dañ lay laaj seen bis bi kañ lay ñëwaat. tey man ay taximan dañ ma koy laaj. parce que caravane bi dañuy defal ak xéewal yu bari di ko partagé ak ñoom. commissaire bi toujours bu affaire bi jàllee daf may woo yenn saa yi seen caravane bi kenn lay amaat. parce que dañ leen indi lay xéewal yu bëri. Hmm. dañuy tibb ay yu bëree bëri bëri. yóbbu ko ci bërëb yu bëri liñ ci jublu rek ngir ñoom ñëpp ñu xam ni liggéeyu Sëriñ tubaab yi dafa war a yaatu te lépp aw yiw la te suñu borom dimbali ñun ñëpp ñu wammatoo loolu ci njàngaleem Sëriñ Cheikh rek tey boo demee daayira Tijaan bi mooy ñu fa teewal Sëriñ Cheikh Alaaji bi ñëwee dañuy ñëw ñoom ñëpp ñi fa teewal Baye Niass ñëw ñoom ñëpp yaay faale ak Baye faale ñoom waxuma seen wax ñooy màggal màggal gi ndeysaan kon daal bis la boo xam ni. lu kawee suñu njort am nañ ko ci biñ koy tàmbalee ak fi bis bi egsi. macha allah ndax ñu bari jàpp ñu woon ni naa egsi foofu. Mhm. waaye ñu gëm rek xam ne liggéey bi Serigne Touba boo ci nekkee te gëm ko. Mhm. mën na laa yóbbu fu ne. ndeysaan. santaat nañ ci bu baax. ndeysaan loolu rek a wér muy euh, pas-pas wax dëgg yàlla. ndax euh, fi ngeen ko jëlee ak fi ngeen ko yóbbu kawe na lool. Mm. tey nag buñ doon ñëw ci ak maanaam actualité. Mm. Euh, kon ne xam na Niger jamono bi ñu wax yéen xëy na neexut hmm. ay yëngoo nga fay xew ay tension yoo xam ni xëy na euh, mën na bouleverser leen ci seen activité hmm. tey euh, boo doon ñëw un peu résumé ci situation ba nga fa bàyyi. Hmm. ak daayira bi xëy na ak seen activité ni mu daan amee ndax dana mën di dérouler normalement. waaw jamono ji Niger am na ay jafe-jafe. ñëpp xam nañ ni ci coup d'état la nekk. waaye teewul wilaya Niger ci seen Pastef tàmbali woon nañ liggéey bi lu jiitu ma fay jógee ndax li may wax at bi yëpp bu ñu xasee màggal ba pare dimanche bu ci topp wala lundi bi dañuy commencé waat ak ñëw pour waajal déwén ñu noonu la ñuy màggale buñ paree nii dimanche bi ci topp dañuy waajal déwén di réunion waajaloon nañ lépp daanaka lu jiitu coup d'état bi keroog bi weeru muharram bi feeñee rek ñu xam bis bi taf nañ pano yi ñu daan taf yëpp fukki pano lañ taf def ko aéroport ak place yi nga xam ne si yu yu populaire la yëpp. taf nañ fa nataalu sëriñ bi bind fa mbindum sëriñ Cheikh mi. nga xam ne sëriñ Mbàkke mi moo ñu ko joxoon. ak lenn yi nga xam ni sëñ Ahmadu Njaay Ngiraan moo ñu ko joxoon. mooy lu mel ne di nekk ci tableau yi. ñu def ko ca. ak lil Moustapha nawaytu mayu jaddidu. sunnatul xarraway ni Ahmadu. comme dëkk la boo xam ne dafa bari ay xeet. Mm-hmm. mais buñ gisee tableau bi dañuy xam ne ñii. ci lislaam rek lañ nekk ñu seet wecc loolu bokk na ci li taxoon ñu def ko mhm. jafe-jafe ya fa am nag euh, li mu wàññi tuuti ci activité yi mooy caravane bi ñu daan def mhm. ndax dëkk bu nekk ci coup d'état amul sécurité mhm. police bi nga xam ne moo ñu daan jox sécurité di ñu jox lu doy doy lañ ñu daan jox man commissaire daf ma daan woo rek laaj ñaata ngeen soxla mujj na daaw moo fa dem wala dara dama koy envoyé message bu xëyee woo ma ñaata ngeen soxla mu jox ñu lépp lu ñu soxla ci sécurité mais comme gis nañ ni dëkk bi nii la mel. dañu war a ànd ak ñoom jàppale leen comprendre leen. tey mënuñu def caravane bi. mais à part bi lépp lu ñu daan def ci bis bi dañ koy def. bis bi daf daan fanaan. waaye du mën a fanaan parce dañ nekk ci couvre-feu. Ah, actuellement. actuellement dañ nekk ci couvre-feu. à partir de 23 heures. kon danañ mën a xëy 7 heures du matin comme ni ñu daan def jàng alxuraan bi heure caravane bi lu ñu def caravane dañuy toog ci kër Serigne Touba gi waa kuréel gi jàng. ba treize heures ñu pause xéwlu bu pare programme bi continuer bu guddee aussi cérémonie officielle beeg yi ci daan am yëpp am waaye may profité di ci di ci wax dara dafa am kilifa goo xam ne daf ci daan jàpp du ñàkk yéen a ko doon gis ci image yi. mu nekkoon fa Cheikhou Baye ñas mu tudd Cheikh Ibrahim Choyem bokk na ci ñi ñu dimbali ba ñu am autorisation caravane bi en 2017 suñu borom dogal mu nelaw ci fan yi waa daayira bi aussi programmé nañu. def benn hommage pour moom affiche bu ñu def ci cérémonie bi bàyyi ko xel defal ko fa ñaan ñuy sàkku it waa wilaaya bi aussi ñu bàyyil ñu ko xel bu baax ku ñu doon jàppale la këram ak kër sëñ Tuubaa gi ñoo dendal ku joxoon te liggéey bi la saa su ne def ñu doon yóbbante ay nuyoo ak ay cant ci waa daayira bi waaye ci gàttal daal lu dul caravane bi rek ak fanaan gi mu daan fanaan lu dul lool rek bis bi day continuer kon mën nañu jamono bii ñu wax yéen ñoo ngi ko fay dundal. ñoo ko koy nii may waxee ak rek. Mm-hmm. gaa yi ñu ngi ca kër Serigne Touba ga mm-hmm. ñoom ñëpp fa la ñuy fanaan nekk ci wàccaay mi. Mm-hmm. defar xéewal yi préparé kook lépp. Mm-hmm. lu dul caravane bi. ak fanaan gi mu daan fanaan rek. Mm-hmm. li ci des lépp day continuer. teraanga yi ñu daan tibb di ko yóbbul kilifa yi. noonu la ñuy continuer di ko def. incha allah. ndax wilaaye Niger ci màggal gi rek lay am ca bés ba mooy fa ca maanaam ca dëkk ba. Mm. Euh, dafay am rek ci sireen xaram bi di ko dundal wala mi ngi ci yeneen activité xëy na di taxawaay ay cant wala yu ko nuru wala di di organiser la en tout bis yu bokkut ak bi waaw ci lu ma fàtte woon rek. ci bis bii doo décembre bi ñu doon def day am chaque année ba léegi. ba nii may waxee ak yow man jot naa waa CNTS. mooy ñu yor wàllum doo décembre bi. xamal nañu ma suba incha allah huit heures dana fekk seen ñaari bus yi taxaw ci buntu kër Serigne Touba gi. pour ñu continuer loolu ñu daan def. bu bis bii jàllee it bis way daw lii dañ koy taxaw comme ni ko fii di taxaw. dañuy xëy jàng ay kaamil lim yu bari ci kër Serigne Touba gi. waa CNTS ñëw ñu def doo décembre aussi. ñetti fanu baraxlu yi noonu lañ koy def. Hmm. dañuy dajee jàng ay kaamil defal ay teraanga séddale ko mbokk jullit yi noonu lañ koy yeneen bis yi am yëpp bépp bis bu ñu taxaw fii Touba bokk na ci gàmm màggalu safar gi kazu rajab bis yooyu yëpp waa wilaaya fa man deseen kuréel gu fa nekk waa wilaaya la fa man te lii ma lay wax waxewu ma sama bakkat kañ fay wax Baye Mourtala Gueye nga xam ne mooy président daayira kër Serigne Touba gi bépp bis bu ñu am ana waa wilaaya lay wax ci seen poos ci seen teewaay ci seen taxawaay bu rafet. lépp bis bu ñu taxaw daal. waa wilaaya ñu ngi ci. boo doon joxee message wala mën naa ni xëy na ay mots yoo xam day dellu ca kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ca dëkk booba ndax li nga wax ni lépp xay na ak ak jàppandal la ca ñooña. tey yan kàddu lay doon. waaw sant leen bu baax. di sant it mbokk taalibe yi nga xam ne bàyyi naa leen fa. Mm-hmm. suñu borom dogaloon ñu jiital ma ci liggéey bi ma nekk ak ñoom. Mm-hmm. daanaka sax mën naan ñoom ñëpp ma mag. ndeysaan. waaye seenu baax ak seen mm-hmm. jikko ñoom rek la ñu àndee ak ñun. Mm-hmm. te ànd ak ñoom it faaw ma sant leen ndax ànd ak ñoom dafa yomb. duñ la fa kastal ci dara. Mm-hmm. dañuy ànd ak yow pare jàppale la ci lépp. kon nag ñu ngi leen di sant ñoom it di ko teg ci loxo yi sëñ Ablaye sàll ma fa ne. mu jàllaleel ñu ko ci ñi ci des ñëpp. kilifa ya fa nekk muy Baye Matalaay Guèye may kilifa kër Serigne Touba ga. ak daayira ya fa nekk yëpp. sant rek lañ leen mën a def ndax ñoom ñëpp bi bis bi ñëwee dañ koy ànd ak ñun bu baax a baax a baax a baax. ambassadeur Sénégal ba fa nekk aussi saa su ne mi ngi jege wilaya bu baax a baax a baax. le problème yi di bari bari bari léegi la may woo ni ma yónnee nañ seen enveloppe. ndeysaan. te noonu lañ ko baaxoo defee depuis biñ tàmbalee ba léegi. sànq ci ngoon lañ yónnee seen enveloppe pour jàppee ko ci bis bi ci enveloppe bu am solo lay doon chaque année. te bis bu wilaya di taxaw du ñu yem ci bi suba ñu xëyee dañuy ñëw. ndeysaan. boo xoolee ci caravane bi message bi ñoo koy jëkk a jàllale ci kanamu média bi yëpp. Mhm. parce que te màggal gi média bi day ñëw. média Niger bi day ñëw. ñoom ñëpp ko xam. ni may waxee ak yow barki démb rek am na kenn ci kilifa yi kiy liggéey ci ministre de l'intérieur la yaakaar la. Mhm. Euh, dafay gëstu bu am ay numéro pour xool nan lay def ba mën a joxe barkeeloo ci màggal gi. Mhm. pour waa wilaaya bu ñu def bis bi ñu mën a ñaan ngir dëkk bi amaat jàmm kon waa dëkk bi am nañ yaakaar bu baax. ci liggéey bi ndax dëkk bi am nay jafe-jafe yaakaaruñ ci kenn lu dul wilaaya loolu yaakaar naa ab cër la allah ñu ngi lay sant bu baax mu mel ni tam euh, loolu lépp ay cant la hmm. euh, ndax itam mën naa ni dëkk la boo xam ni bu fekkoon kilifa yi xay ne jàpp ca noona hmm. euh, jàpp ndal gi nii du am hmm. kon laata ñu gën a kii dañ lay bàyyi nga tàggatoo ak internet yi nga xam ne ñoo lay bàyyi xel yëpp joxe kàddu mujj yi jërëjëf. sëñ Balla ñu ngi leen di sant bu baax. di sant bu baax kilifay wilaya bi. di ko commencé ci sëñ Moustapha. di sant nañ ak moom léegi. ndeysaan. mu jox ñu yitte joo xam ni. kawe na suñu njort. waaye li may wax noonu rek la mën a mel. wallaay. doomi sëñ Cheikh moom baax rek la mën a def. képp moom baax point. kon ñu ngi koy sant mu yóbbaaleel ñu sëñ Ousmane ak kilifa yëpp. Mhm. waaye di sant Baye suñ Mbacke Lo mii nga xam ni. yitte jum ñox wilaya Niger kawe na waaye di sant wilaya diaspora bi yëpp di ko tàmbalee ci bàyyi bi sur ñaan góor yàlla mu yóbbaaleel ñu ñëpp ñëpp di sant waa fédération bi yëpp ndax saa su ne ñi ñuy nemmeeku dañuy nemmeeku ba dañ ciy am kersa bu baax a baax a baax di sant Serigne Cheikh Gueye mii nga xam ni buñ fi nekkulee moo fi représenté wilaya wilaya Niger te mate ko sëkk sunu mag la sunu kilifa la sunu wayjur la maanaam ndax yitte ji mu jox liggéey bi saa su ne mi ngi nemmeeku di ñu soñ mhm. ñu ngi lay sant yow sëñ Balla di sant sëñ Bada Diop ak mhm. mbooleem waa bi yëpp mhm. xam naa ni li ñu bëgg a wax lépp dana dana jafe pour ñu wax ko. macha allah tubaarkàlla waaye daal sant nañ bu baax a baax. tubaarkàlla sunu xol sedd na trop. tubaarkàlla di sàkku ci yéen. ngeen ñaanalal ñu waa wilaaya ña ñu fa bàyyi. ndax dëkk la bu am ay yëngu-yëngu jamono ji sëriñ bi ma ko waxee dani ma jàmm rek a cay mujj. te kon suñu xel dal na. waaye ñu ngi sàkk kon ñëpp ñu ñaanal waa wilaaya ba ay jàmbaar lañ. Mm-hmm, incha allah buñ waxoon activités yi ñuy koy defee ak na dëkk ba mel. Mm-hmm. ku fa nekkul rek mën a mm-hmm. kon nag ñu ngi lay sant yéen di sant mbooloo mi yëpp. di sant ñëpp. képp ku ñuy teewlu rek ci euh, Wilaya TV. ñoo ngi lay sant di la nuyu di leen baal wax bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah. Euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax Serigne Dame Guèye moom itam moo nekk. Euh, ki nga xam ni mooy jëwrin ca wilaya Niger comme ni mu ko waxee muy euh, dëkk boo xam ne mën naa ni lu mel noonu moom ña ngi ko fay doog a dégg. Mm. Euh, muy wilaya dem ba Niger xëy na sax mi ngi si diaspora bi yëpp. waaye fu mel ni Niger xëy na déggaguñ ko fóot depuis 2016 ba léegi mu ngi fi existé te it avancement rek ngeen lañ ci gis d'après li nga wax. Mm. ndax fi ngeen tàmbalee ak jamono bi fi ngeen di wax ni fa ngeen toll loolu wax dëgg yàlla. kawe na njort ci ñu lool kon ñu ngi jaajëfal bu baax mbokki internet yi nga xam ni itam ñoom itam ñoo ñu bàyyi xel mën naa ni ba magal gi tàmbalee ba léegi wala lu ko jiitu euh, di ñu topp ci suñu plateforme yi nga xam ne moom la ñu am yëpp kon itam ba tey rek ñu soññ di leen duñ tàyyi di leen sant waaye itam di leen jaajëfal euh, di leen tam soññ ci ñuy abonné ci Wilaya TV officiel waaye itam di bës cloche de notification bi ndax di man di jot saa su suñu ay notification di man di dund bës bi en direct kon ni lañ ko fas yéene ànd ak yéen ci màggal gi bu ñu xëyee fas yéene wala tam continuer ko ni ci guddi gi ci plateau yu fasantikoo nag ci xamle sëriñ bi rek akum njàngaleem waaye tam xamle euh, comme lu mel ni rek muy xamle jotaay yi nga xam ne xëy na seen xam-xam àggu fa woon kon ni lañ ko fas yéene ànd ak yéen ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci ànd bi saa su waaye tam politique gi nga xam ne am ngeen ko ci Wilaya TV di jaajëfal mboolem ñi nga xam ne tam ñoo nekk ci côté technique bi duñ leen fàtte saa ndax ñoom itam wax yàlla euh, bu vidéo yi ma ne di yemb saa su ne rek ñoom ñoo ci taxaw te it ñoo ci def yitte kon nii la ñuy fas yéene suba ci bésu màggal gi euh, ci mboolem activité fii am ci biir ak ci biti muy plateau yi ñu def fi waaye itam ci biti la fay xew itam fas nañ ko yéenee dund ak yéen kon ñi ngi leen di jox dig daje ba suba jaa ngeen jëf. Cheikh Moustapha amul ku lay werante te ka nga yoo ci Mustafa